بعد العزبلة وبعد البسملة وبعد الهمدلة وبعد الهوقلة ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه خير خدمه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين li ma bëggoon a wax njaboot gi rek moo di que fi ñu toll nii silence total laa bëgg waaw ndax jamono bu nekk ak li mu laaj te yi nga xam ne moo xew ci xale yi bëgguma kenn ku ci xalaat ni njiitu réew mi dara la ci mbaa ministre de l'intérieur bu bees bi dara la ci déedéet état dafa yore ay pouvoir am pouvoir exécutif législatif judiciaire ku nekk di def sa liggéey man wax loo ma kenn dara gis ngeen conférence de presse bi ma naroon a def dama koy bàyyi ba jëmmi jamono waaw 31 décembre bi maa ngi leen jarul ngeen koy waajal ndax xel dafa baax yéen xam ngeen ni jamono yi ñu nekk tam ñëpp xam nañ ni jamono yi ñu nekk ci confinement yi yépp comportement yi nga xam ne yu bokkul yi nga xamante ne bi xew na ci sunu biir waaw nga xam ne bu fekkente ni état bi nee na nangam nañ doxalee nangam citoyen yi ngeen gis ñun ci sunu wet ni mu ciy demee waaw nga xam ne bu dëgg bu fekkee dëgg rek la ñuy wax maanaam ñun ñoo ko ci respecté wul ci li ñuy wax ñoom ñi ci des ñëpp dañ ko respecté te loolu yëpp ñu koy baal maanaam dëgg bu ñëwee da ngeen koy ñeme waaw ñii seen liggéey la ñuy def judiciairement nañ def seenu liggéey man waxloo ma kenn dara waaw chef d'état bi tam du ci dara ñee ci seen liggéey la nekk ma loolu daal laa leen di wax xale yépp laa koy wax képp ko ci xamante ne bii nag nekk nga di law law yi wax leneen yoom ku ci ñemewul kaso waaw gis ngeen man nii maanaam damaa bëgg a dugg ci kaso bi waaye ku tedd ki nanguwul waaw fi ma jaar du ngeen fi jaar quatre-vingt-quinze fii laa nekk lu ne ma fu ma ma dugg ci loolu ma def ko bëgg dugg ci kaso bi ku tedd ki àndu waaw ba fii may wax ak yéen ñiy dugg kaso yëpp man la ñuy duggal boo xam dañoo tooñ moo xam tooñuñu loolu leer na nañ buñ toll ne waxloo ma kenn waaw waaw man maa wax leen ñoom maa leen wax ni ku tooñ ku tooñ nañ koy yar <laughs> xanaa tey ñi ma yërëm mooy ñi doon joxe seeni doom rek waaye seeni doom yi nag ñoom état man nañ leen yar ak daara yi loolu la waaw waxloo ma kenn dara daal képp na ku ci ñemee kaso kaso baa ngi nii waaw moom ku ci wax lu jar ñu jàpp la bu ñu la jàppee ñun ñëpp war a dugg kaso amul tooñ amul baña a tooñ murit bu ci goree ku tedd ki wax nanu ni li mënu jëleel ci tubaab yi bu ci kenn génn kaso salaam